li ci sëriñ Abdou junj léegi ci alif lam ruum am na solo fii àddina al gis nga yàlla du tudd détail détail bu nit tëral du ko tudd mukk ndax du teg du teg layam ci lu nit layam ci lu mu bind rek moom la koy teg moo tax mu ni fii àddina al ard bañ bañ tudd limu kilomètre ya na mu toll lu tax kilomètre nitu ko sàkk kon du ci tegtaloo fii àddina al ard rek lay wax donte ñaar fukki kilomètre la ak ñeent wahum min baadi galabihim sa yaxaliboon fii bidaa sinin li mu waxtu wa waxu ko eh, détail du ca dem waaye rek lu am solo la ci kaw fursu ak ruum di xëccoo jullit yi bëgg ko sàggane yàlla mer ndax xam na ni affinité yi nekk ci diggante jullit yi ak waa ruum nekkul ci diggante jullit yi ak waa furs te nag ku ne ka nga bokkal jikko boo ko tëyelul ñàkk nga ka nga bokkal jikko boo ko téyelul ñàkk nga ndax doo am koo waxalati waaw te lu am solo la lu mat a bàyyi xel daani ki sunu boroom yi mu bëgg bokk na ci ku la gën jege nga bañ ko seetaan bu xewlee yi mu bëgg bokk na ci ki nga bokkal jikko bu xewlee nga bañ ko seetaan te lu am solo la am na loo xam ni ku ko sàggane ñàkk ba faw la تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى لتخ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون لما تبا يخل كينغا بوكل موس بوكو وري مصيبة دالة كينغا بوكل جيكو بو تخول تي ويتم مصيبة دالة لولو موي لولو